del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar nga am info yu leer ci people sport politique Feeling Dakar yaa ngi Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information. Maman. jamono jële passé ay weer ci ginnaaw. Mhm. bi accident yi commencé. Mhm. ñëw naa fi jël la daaj la ci accident yi nga ni ma yii ñëw. am na yeneen yi nga xamante ni mhm. war nañoo tëdd waaw te des na lu bëree bëri accident yi en tant que voyante loolu li ma gisoon la wala ba taxaw ne ma woon carrément accident yi dina gën a bëri li ma ci jaaxal sa daa desaat waaw ah bon dafa desaat ndaxte euh, bu yeboo képp ki nga xam ne yaa ngi waajal màggali waaw na nga def ndox ak mburu ak soow nga saraxe ko ndox ak mburu ak soow loolu man maa ko maye gratuite ku gëm na nga def mhm. ku gëmul bul def mhm. mu ngi noonu xam nga ñi nga xam ne dañ fi nekkoon ci nguur gi avant ñuy dem mhm. dafa am liggéey yu bari yuñ fi defoon sànni ka te gis nga liggéey bu ñuul moom dafa nekk lu doy waar ndaxte ala kulli yàlla day jàpp moo waral accident yooyu xëy na ba ma ko waxee da nga ma laajul woon lan moo koy causé moo koy causé tout à fait c'est ça mais actuellement nii hmm. képp kuy génn na nga defar sa bopp ñaanal sa bopp kon liggéey yooyu ba tey mi ngi ci mu ngi ci parce que am na liggéey yi nga xam ne bu ñu ko defee ba ëf ko ci mbedd bi mais doomu jàmbur ñu ngi ci risque waaw hmm. te macha allah ñoom ñu fi nekkoon xalaatuñu woon doomu jàmbur yi hmm. mais ñoom li ñuy xalaat mooy seen bëgg-bëgg xam nga ki nga xam ne jël na doom rawale ko dëkk dëkk kooku ragalul doomu jàmbur am problème. ndax moom sauvé na la mu moom ba pare d'accord mu ngi noonu. Mhm. moo taxit euh, léemu rek ak sarax mu ñu ci mën a génne. ok waaw d'accord euh, loolu am na solo mais maman na ñëw nag ci ma Marème Faye Sall. Uh-huh. parce que yooyu yooyu yëpp ces révélation lañ. Uh-huh. képp nga xamante ni takkoon nga wala jegoon nga ci ñi nga xamante ñoo yoon réew mi. Mm-hmm. ci Ousmane Sonko dinañ demee ba ci kanam di nga ko gis. dëgg la naam temps est passé ñu woolu woon ko. Mm-hmm. ci ay affaires yu terrain yu demee noonu. Mm-hmm. ban jànkat nga am. ci convocation yaay madame Faye Sall bi ñu convoqué woon. waaw lépp loo xam ne yoon laaj na ko rek na ko def. ok du soxor du dara. mais euh, dama gis ne. waaw ah. ndege ni daaw. Ah. la jabaru Sonko. génn ànd ak jooy ndeysaan. dëgg la génn di ko woo moom Marème Faye Sall. Mhm. waaw ñaari fan ma def émission ak yow ne la. Mhm. ne ko bu mu wàccee boppam ànduma ci. waaw ndax man euh, man Abdou man gaynde laa. dëgg la loolu nga waxoon. Mhm. man ginnaaw yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa man sëñ Babacar si moo ma changé. ndeysaan. defar. sa waay la. waaw moo tax euh, su ma gisee nit ku jaaxle. bay toroxlu man daf may metti. ndax man keroog ba ma gën a jaaxle gën a wéet keroog laa gën a dem mhm. noonu la ma yàlla bindee mhm. kon boo moom muy moom di Marème fay sàll lépp loo xam ne jar na ngañ ko ci def mhm. rek nañ waxante dëgg lebaluñ fi dëkk bi lu baax dëgg dégg la laaj na yi nga xam ne doo ko yéene sa moroom mais man mii sax bu ma defee lu dul yoon nañ ma teg ci yoon ndax àdduna bi moo ko laaj waaw mu ngi noonu ndaxte bu mu génnee daaw metti woon na torop hmm. te pourtant su waroon na am bu baax. jàppale. waaw jàppale xalaat ay njabootam. waaw xalaat soppiim yi nga xam ne. Hmm. Euh, guddi daana jot ñu war a teg lekk du ñu lekk. la kon boo bu laajee ñu yar leen tamit nañ leen yar bu baax. Hmm. lu mu laaj ñun peuple bi demandé nañ loolu. ci yoon nañ ko def. d'accord. ndax dafa yomb trop nga def lu la neex. Hmm. dem ba war a ci def sa benn genre loi bu bees teg dem sa yoon. <laughs> dem sa Maroc tëdd fa noonu. Hmm. lu mu laaj nañ ko def. d'accord ndax suñu xol yi xaw a giif tuuti sax. ok waaw ah. am na ñi nga xam ne wallaahi bu ñu gisee ancien président Macky Sall. Hmm. dañuy jooy. incha ndaxte souvenir biñ ci am. waaw. am na ci ki nga xam ne toog na ci buntu këram di féexlu toog mook papaam. xeex am ba ci buntu këram ñu sànni ko dara mu jaaree fa de te moo papaam ñu bi doon ataaya kooku fu mu ko gisee jooy am na ci ki nga xam ne wàcc na liggéey mm-hmm. war a ñibbi ci këram yore dépense am mm-hmm. ñu sànni ko lu waral tànkam dagg wallaahi mm-hmm. kon boog ñun ñaan nañu lépp luy droit lépp luy yoon nañ ko def ndax askan wi seen xol xaw féex d'accord waaw ok moment loolu am na solo bu baax a baax naam fi ñuy jeexale actualité bi rek pour dugg ci liggéey bi ndax actualité bi dafa laaj boo gisee tey ñu pare waaye yëpp jox la ko da nga a génn nag des fois xam mm. naa euh, yitte yeeg ak faj yi ngay faj ak yooyu moom moo tax waaw ndaxte Abdou man euh, liggéey bi mm. euh, dëgg la mm-hmm. mais man dama bëgg su ma nit yitteloo ba ñëw ci man mm-hmm. ñin ñaa ngi may seetaan mm-hmm. ñi ma xam dañuy dëggal lii ndax man su ma la xasee jëlal liggéey mënuma defaat beneen émission may ñaanal tamit ñi nga xam ne ñu ngi màggale. Mm-hmm. yàlla sàmm leen aller retour. amiin amiin amiin te ñu bàyyi xel ne. Mm. fa ñuy dem. Mm. sëriñ bi daal liggéeyal boromam. dëgg la ndaxte. Mm-hmm. macha allah bokk ci deretu sëñ Touba nekkul lu yomb. Mm-hmm. ndax ku gumba sax xam ne moom macha allah liggéeyal na suñu borom. dëgg la ndaxte boo liggéeyee yàlla fay la te li ko yàlla fay doomu aadama yëpp gis nañ ko. kon boo ko yàqamtee màggali. bu mu mhm. tax nga yóbbu fa sobe. dëgg la mooy yàlla dem fa. Mhm. ndaxte ñu bari dañu naan accidents yi Tuuba. Mhm. mais gëm naa ne suñu borom ni mu. nu mu mbayee ndam suñ Tuubaa may ko mm-hmm. yeneen sëriñ yi mm-hmm. am na noo leen di setee boo leen demee ci jàmm di ngeen dellusi waat ci jàmm macha allah mais ki nga xam ne liggéey na ba yàlla may ko teraanga mm. yéen ngeen fii dem lu toll ni Tuubaa ah. di fa def ndaka su dul noonu mm-hmm. lekk yóbbu leen fa naan wala mooy yàlla yàlla da leen di teg nattu kenn ñaanul leen ko mais ni ngeen bëggee suñ Tuubaa na sincère ci yéen ba boo leen fa demee li mu dig ngeen def ko wallaahi dëgg la leen yàlla teg ci yoonu jàmm te dellusi waat leen ci yoonu jàmm islam a loo leen fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu allahumma amin comme niñ ko waxee ci euh, màggal gi lañ jëm yal nañ yàlla teg ñëpp rek ci yoonu jaamu ke ku dem li nga ñëw nga dem ci jaamu ay ñëw ci jaamu hmm. yow moom sama maman nga dima di ma koy waxee a chaque fois rek di la ñaanal gudd fan ak wér parce que sama diggante maag yow moom mun naa ni jaru toog di ko wax parce que ñun ñaar rek xamante nañ bu baax a baax a baax di la ñaanal daal gudd fan lépp li nga xamante ni bëgg nga ci sa njaboot rek ah, suñ borom defal la ko ah, di jaajëfal Pape moo nekkoon ci cadrage bi toujours Abdou moo nekkoon ci ah, présentation bi di leen jox dig dajee ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf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 yaa ngi Feeling Dakar